Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël, la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également Gaël de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager avec l'information inbox sénégalais, il fait folle monter 14 régions du Sénégal. Rokholo xari gogo xari ñi ngi leen di jaajeufal nek également ci l'hôpital ci kër de teud febar. Yalla na suñu borom feug seen bop ñu wër ak jamm ñi nek ci kasso yi ngeen aussi erreur judiciaire gi ñeen ñu deful mo leen fa yobbu. Suñu borom génne leen fa delwat leen ni jaboot ñi de droit. do na suñu borom xal leen aajane fi daw ci gaay on avance ensemble dans la magie de sports TV, l'actualité en contenu gay. Actualité faisons Fazen Wartan et Gramono CAF Award 2023, Ballon d'Or, nouveau Ballon d'Or bien entendu, war également ci équipe type ak li nga aussi la gars caméra, Lamine Camara Lamine Lamine Laftiat Camara euh, donc meilleur jeune joueur ak aussi polémique autour donc euh, de 11 bi nga tech pendant ce temps également qui nga donc Shiamaka Ndazodi Nadozi hein, mon meilleur euh, gardienne hein, ci donc année la ci par rapport li xam ne CAF Award bi yalla na ci kaf Award bi de toute façon année bi lañ wax 2023 jeex na presque hein donc bon fin d'année bi ñom la également Afrique du Sud avec Désiré Ellis euh, donc nek meilleure entraîneuse donc ci jigen ni mom daw nak mi fo na moko moo encore une fois mon moko ko jël ki nga donc l'entraîneur euh, des l'entraîneuse des euh, sud-africaines pendant ce temps aussi Nigeria mon que équipe de l'année donc ci jigen ni également par rapport à nga donc cérémonie CAF World bi nga xamné ñom ñoom nigériennes ah, ci surtout ci compétition féminine yi nga xamné ñoo ci pendant ce temps ki nga donc Nesrine El Shade nek meilleure jeune jeune joueuse c'est chez les euh, féminines également bon les gars donc mon mi nga mon ne joueuse du Maroc Maroc bi nga xamné tamit gaay di coupe du monde bi amna Diego yo xamné tek nañ ko fa les joueuses marocaines en tout cas également c'est NBA aussi c'est année ci ben wàll ki nga xamné aussi mooy Fatima Tagnaout mon meilleure joueuse hein, de l'année qui nga xamné donc club yi loolu dal moko ko di Tagnaout aussi international marocaine, euh, n'est que également une joueuse très très talentueuse. Percy Tao, Percy Tao, le Sud-Africain. Attention à Percy Tao, qui est Coupe d'Afrique le joueur donc Sud-Africain. mon que meilleur joueur donc de l'année qui club Percy Tao le club égyptien de Al Ahly fofu lay dadi jouer malheureusement amul chance nak évoluer percé du côté donc du championnat européen. le club de l'année Al Ahly d'Égypte. Ñoo est également club de l'année une compétition yi compétition interclub yi les égyptiens ñom ci kaw ñoom ak marocains yi ñoo jamono ji ñoo téye tànk ci li nga xam mooy loolu kii nag di Mohamed Salah moom lañ ko tab mu nekk nag également ci nga xam donc mooy euh, homme de l'année donc ci euh, pro Africa bi Mohamed Salah le joueur donc égyptien aussi euh, donc de Liverpool bokk ci joueur yoo xam ne remarqué wu nañ ci 2023 bi le Marocain les lions de l'Atlas ñoom nag un lion qui donc succède à notre lion ren ñoom ñoo nekk meilleure équipe de l'année par rapport ak li ñu def ci coupe du monde bi ak aussi classement bi ñu nekk ñu raw Sénégal ci classement FIFA à classement 4 c'est mérité parce que un nombre exceptionnel également mérité pour Walid Regragui le sélectionneur marocain également Dadi Wout aussi aussi c'est c'est un lion qui succède toujours à un lion affaire de lion c'est une histoire de lion Walid Regragui actuellement que révélation aussi hein

Euh, année bi au niveau de la CAF c'est normal Yassine Bounou def li nga xam aussi moy coupe du monde bu phénoménal hein. donc Yassine Bounou nek le gardien qui a sauvé le Maroc surtout sur série tirs au but 11 baa ngi nii xam nak Sadio Mané est présent Kalidou Koulibaly également présent mais nak li nga xam ne mo xaw yi yéem gaay moy que Yassine Bounou nan lay nek meilleur gardien <laughs> ba pare bokul ci 11 type bi parfois gaay nak wa waa CAF dañoo dañoo xaw ma ne yabaat xam dañoo gumba xam nañu demee loolu nag jur polémique mais aussi que dire de Lamine Lamine Lafiat Camara enfin enfin le joueur sénégalais sénégalais Lamine Camara Monyo, Woutou, un autre sénégalais bi nga qui donc qui Matar Boy Football une histoire de génération comme génération foot bi avec le football ils sont en train de représenter le Sénégal franchement l'ol d'un ci wax parce que génération foot gars yi boo leen ballon d'or yi ñu am jamono consécration yi ñu am yëpp ni ñoo ñu génération foot beaucoup ci centre de formation mais ils sont exceptionnels félicitations Lamine Camara qui n'était pas présent mais en direct la course cette année de Paris fi nga xam le nez. la nekk ngeen gis ko nii muy wone photo bi ne moom mi ngi suivre en live li nga xam donc compétition bi un jeune boo xam c'est l'avenir du football sénégalais day dem Coupe d'Afrique on l'espère la suñu borom dafal ko et tout et que bu demee Coupe d'Afrique également il aura la chance de jouer qui nga Augustin Senghor mon moo daal prium le président de la fédération sénégalaise de football comme on dit ah, euh, Augustin Senghor également félicitations à lui. quoi qu'on puisse dire même vous faites ne tout n'est pas parfait parce que le la perfection est du domaine du divin am na ay jéego également aussi moi, Azizat Azizat Oshoala, mon éclat, sixième fois pour cette joueuse euh, donc euh, nigérienne mo daal ballon d'or féminine bi mom également hein, donc avec le FC Barcelone nek def saison bu exceptionnelle depuis quelques temps depuis presque plus de six ans mu nek au devant de la scène mais également les Nigériens aussi ñoo nekkaat ci kaw ba jël ñaari ballon d'or Victor Osimhen le phénomène de la Serie A et également les Super Eagles du Nigeria Victor phénomène Osimhen euh, jël ballon d'or et qui succède à Sadio Mané Osimhen donc gis avec Aliou Cissé tactico pour assister également à la cérémonie. Et je pense que c'est logique. 45 buts, 4 passes décisives cette saison. Binu Guénoni, Moïse Victor Osimhen, le phénomène de la Serie A. Donc mérité pour lui Mourad Koïdjel parce que trophée individuel de ñu et que individuellement il était le meilleur, il était devant tout le monde. Buñ ko jox lu nak de nek surprise générale pour ñep parce que boko de kan ko jox sincèrement parce que le mérite Victor Osimhen. Gaay di mo nekkoon information ñun bëggoon jox lan ngeen gisee nag li nga xam CAF Award bi trophée et tout. Woy leen di like, On avance ensemble dans la magie des e de Baba Show. pour apprécié le bonus ñu la jaa ngeen jëf